mu njëkk bi jeex na fale sa conseil constitutionnel diggante candidature yu jàll yu jàllul ak yu ñu war a saytuwaat gis-gis nit ñi wute na lool nit ñi mbir mi bett leen lool. Sonko moom dafa nekkoon yaakaaru jeunesse su bëri. mais euh, ñàkk participer élection yi moom. nekk na loo xam ne daal on le regrette nous tous parce que gënoon na enrichir politique bi enrichir également élection yi parce que élection yi moom sax Sonko moom daanaka am na lu lu si des quoi. si wetu boobu am itam lu bett nit ñi te ñu koy rafetlu. candidature kii di Anta Babacar doon jigéen te gan si langum politique bi. waaw amuñu mbetteel ci li nga xam ne moom la Anta Babacar Ngom def ndax loolekat lu baax la moom ah, ci wàllum politique bi ah, ku bees la ci te itam amul benn invention ci conseil constitutionnel la ndax résultat bi daal mooy ne liggéey bu ah, taxaw. te loolu day wane ne daal euh, ku euh, mérité nekk candidat la ci euh, jongante yi. am ñi jàpp ni loolu lu baax la pour démocratie Sénégal. donc on a besoin des jeunes. waaw dañoo soxla ndaw ñi validation dossier bu Anta Babacar Ngom loolee lu rafet la nouvelle bu neex la ci li nga xam ne daal day gën a renforcer li nga xam ne ci langue politique bi la. ñenn ci askan wi di ñaaw lu parrainage bi waaye itam système de contrôle bi ñu jàpp ni état mooy tànn kuy bokk ak ki dul bokk. man ak jaaxle laa ci am parce que da ngay gis koo xam ne def na yitte euh, def ak xarañte ci liggéey bi ba indi mboolem liñ ko laaj ci nombre nombre bi ñu ko laaj ci parrainage yi mais en général dina am euh, fenn fu ñu ko mën a calee fu ñu ko mën a gàllankooree benn ñu ne ko da nga am ay doublon wala ñu ne ñi la ñi la parallèle ñoom seen euh, nekkuñ ci ci ci liste électorale bi xam nga loolu tamit day day day yéeme daal te te ci depuis premier jour yi la commencé. ñenn si askan wi di xamal ni seen yoon nekkul ci politique ñu jàpp ni ñoom ñëpp a yem.